bu ku nekk su ma mënula daagu Tiwaawan manuma daagu Touba manuma daagu Medina Baye manuma daagu Ceneba manuma jaari Njaasaan manuma daagu feneen ak ku ci yéen kon fu nuy daago ma ni gaa yi yorul dara sax ngi daagu fa ñu ne waxuma laa yéen ñi yor dara fii fii ni ko sëriñ Ablaye doon defe ñii defe ko noonu du ni sëñ Ablaye da doon yëkkatee im sëñ boole ay xol moo ko ñoroon te xol yooyu yàlla moo ko boole moo nu boole diine yàlla wax ah waxi yàlla nag samiana wa ataana moo ci war a nekk dama yaakaar ni ku jóg di tas këri yi nga ni ci biir diine di nga bokk kon déggoo waxu yàlla kon ka wax ni kookaa kookaa weddi yàlla yàlla ni kaay leen ànd nga ni ànduma yow yàlla nga amal affaire waatasimu بحبل الله القرآن جميعا والإسلام ولا تفرقوا nga ne maa bañ kon yaa weddi kon nu ngi am mbégte du ma ñëw ci nangam parce que loolu lu ñu def fii la te lu ñu téye la képp ku nu bëgg a jot di ngeen a jot ci këri diine yi téeméeri sénégalais yoo gis waaye 99 pour cent ci ay xoli kër la ñu nekk ci réew mi xool yu mag ñoo xamante ni ni ma ko waxee billaahi ca hadratul ilaahiya lañ leen tàmpale lañ yor ku ci ne nag waay waay ñun danoo war a sant yàlla boo duggee ci néeg mu lëndëm nga ne ray sa làmp ñu ne leer na kee ñëw dóoraat ñu ne gën na leer kee ñëw dóoraat ñu ne gën na leer gën kon leer ci kaw leer leer ci kaw leer loolu mooy këri diine Sénégal gépp nuyu suñu doom yi nekk bitim réew bu baax sant leen ci seen taxawaay ci seen lépp ci fii ak fa ñu nekk gërëmit suñuy imaam gërëm suñuy représentant xalif yi fi nekk yépp ku ci ne kulim juum tey waxu nangam la dañuy gërëm ñépp sant ñépp na leen óor ni suñu xol sedd na sëñ maam libaas al oustaz ñu lay yóbbante ci kilifa yëpp sunu xal sedd na ci ñëpp bëgg nañu ñëpp téye nañu ñëpp gis ngeen fii ma taxaw naa Limaamul Maari yu ngeen jàkkaar lool ndax naa Limaam bi muy am Seydina Isaa ku ko fekke ku fekke ba muy am Majoon ku fekke ba muy am Babacar ku fekke ku fekke waaye te ngi leen bàyyeeg moom lii mooy fii leneen duma ko commenté li ci des kër gaa ngi nii monsieur le ministre fa tabarakallahu la ñu war a wax nañ ko démb hmm? war a wax wax nañu ko démb ki wax sànq tudd na ñii fi ne collectivité di Lébu bu Yoof waxuma la muy olama borom ndom bi tànk yépp ba lu amul lu ñu yëkkatewul te yëkkati ànd noog ñun yëkkati sëriñ Ablaye fii la daan taxaw naan tribune waa Yoofa ngee mbokki sëriñ Ablaye a ah, mbokki Seydina Limaamu moo nga na de a ah, ñu nga nee toog fa tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla nag lii ngeen taxawe taaral bis bi parce que seen yëfa sunu yëfa kon yàlla yàlla eh, ñëwal leen bu baax a baax أقول قوزي قولي هذا وأرحب مرة أخرى بسعادة سفير أو ممثل سفارة الجزائر جزائر التي تربط بنا علاقات متينة ومتميزة نرحب بكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله